Aujourd'hui, nous, musulmans, nous sommes chanceux. Il faut nous reconnecter à l'importance et à la signification de ce jeûne. Il ne s'agissait pas simplement de se priver d'eau et de manger, mais il s'agissait de comprendre et de se connecter à l'esprit de la chose. L'esprit, c'est qu'au bout d'un mois, que ça puisse en fait nous accompagner toute notre vie, en tout cas toute une année au moins, mais toute la vie, ce serait donc l'idéal. Donc une maîtrise de soi et Cheikh Khadim l'a souvent rappelé, le djihadul nafs, le combat et la maîtrise donc de, de soi. Et je pense que c'est le seul rappel à moi donc qui doit en profiter, mais profiter aussi à tous les musulmans. Encore une fois, euh, euh présenter nos meilleurs voeux à la Oumma, présenter nos voeux de longévité, de succès, et, et, et, de santé au calife général donc, des Mourides et au calife donc, du pays et à toute la Oumma islamique. Merci beaucoup. turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Ibnul Bachir di xalif général des Mourides ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko mi ngi nuyoo di ziyaara maanaam jullit yëpp yi ne ci réew mi ak yi nekk ci umma islamique bi yëpp fu jullit masan mën na ne ci àddina bi di leen ñaanal jàmm di leen ndokkale di leen balu àq di bal àq ñépp di ñaan jàmm fu nit nekk ci àddina te baat bii nga xam ne moom lañu yàlla boole muy baatu shahada bi nga xam ne ñun jullit yi ñoo ko moom foo mante ne ci àddina yàlla defal la jàmm euh, rawatina biir réew mi nga xam ni mooy réewum senegaal ñu dëkk ko bokk ko ak ñépp muy nuyu ñëpp di leen ziyaare ci weeru tedd wu màgg wi ñu bu jógee nga xam ni day weer woo xam ni weeru ndonent la dollent boo xam ne bii boo defee benn yàlla fulal la ko te kenn du xam fu mu yem mu am am njàngale mu rëy moo xam ne ministre de l'éducation wax na ko am njàngale la njàngale moo xam ne bii fu ñu war fu ñu toll ci suñu dund dañ koo war di ko nafar muy mu bañ a yem ci xiif bi ak mar bi waaye ñu jox ñu esprit de partage esprit de solidarité moom la ci yàlla jublu ndaxte ku xamul xiif reg du neex ci yow te weeru koor ku ne xam ne am na xiif am na mar bon mu nekk un des besoins yoo xam ne yi vitaux yu doomu aadama bu nekk war di am te loolu bu ñu amul solidarité ci suñu biir duñu ko mën a comprendre te duñu ko mën a dund te duñu mën a dimbalante sëriñ bi nag mi ngi sant réew mépp di jiital ci cant gi ki nga xam ne ci kattanu suñu borom tey ji moo jiite réew mi ñu koy wax Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xam ni mooy njiitu jëwriñ bi di Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñuy ay doomam nga xam ni di leen ñaanal xam ni lii yàlla dogal ci réew mi nga xam ni ku ne amoon na ci njaqare waroon nañoo xam ni réew mii dafa am ñaan goo xam ni gii moom lañ ko mooñaaleel sëriñ Touba fii la dëkk sénégalais la te ñaan na ci réew mi ñaan goo xam ne bii bu ñu dajalee xol yi doon benn ku ne yéene moroomam li nga ko yéene ñëpp dinañ teg seen bët ci xéewal yi nga xam ne Serigne Touba ñaan na ko te dina ñëw xéewal yooyu nag ñu am lu ba lu rëy la loo xam ne lii yàlla nañ ko fekkee ak jàmm li ne ci réew mi newul ci benn réew ndax ki fi nekk muy Serigne Touba nekkul fenn la ne Màkka nekk Madina nañu am njort ni dina fi ñëw sëriñ Touba ko wax sëriñ Saliou wax ma ko kon war nañu gën a góorgóorlu surtout ndaw yi yàlla def na nag réew mi ay réew yi ndaw la ndaw ko jiite waaye boroomi xam-xam lañu yaakaar ji ngeen ji ñu am ci ñoom yàlla na ko yàlla def lii ministre des finances wax ak collègue bi nga xam ni moo yore mbay mi ak njàngale mi li ñu wax dal na xel loola nag ay nisër la nisër yooyu yàlla na ko yàlla mottali bu ko defee ñun ñëpp ñu bokk ko ci jàmm yéenante jàmm na ngeen xam ne sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp ndaxte ñëppi doomam lañu ndaxte réew mi gis ngeen ni mu tëddee kenn xalaatul woon ni tey jii dinañ jóge ci ay élection mu mel nii mu mel ñi fi yàlla bàyyi woon tegoon leen fi ñu liggéey liggéey bu rafet ba jóge fi ñoo ngi leen di ñaanal jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm ñii ñëw am ni sër yu baax bokk ci njaboot gi ñoo ngi leen di ñaanal lu ñu bëgg a def ci lu baax yàlla na leen ko yàlla yombalal ci barke borom Touba. tey fàttali suñu mbokk julli di rek ni leen yàlla dafa wax ñu bokk ñu booloo doon benn mbooloo amul lu ko të nit bu booloo ay nit bu ñu booloo lu ñu jéem man ko lu ne ci seen kanam ñu yëkkati ko te réew mi toll nañu foo xam ne nag wax dëgg yàlla war nañoo booloo ndax ñi ko dëkkee mën a changer condition de vie kon ñoo ngi leen ciy exhorté di leen ñaanal di leen wax ni vous avez notre soutien total dinañ leen jàppale ndaxte ñun ñëpp day li ñu ñor ñor sëriñ bi ñor njabootu sëriñ Touba gi mooy réew mi rek ndaxte réew mi réew mi day réewum sëriñ Touba ak ñu baax ñi nga xam ni ñoom lu fi sëriñ bi fekk ak ñi mu fi bàyyi na ngeen dalal seen xel lii ngeen wax muy ay nisër yal na ko yàlla mottali ñoo ngi sant ñëpp nag ndax weeru koor wi gis ngeen Masaalikul Jinaan ni mu demee ba ñu tàmbalee koor gi ba léegi bés bu ne lu mat ci juróom junni ba juróom benn junni nit dinañ fi dogoo. lépp yow lépp mbokku taalibe yi ak ñi nga xam ne bëgg nañoo liggéey yàlla ci jaam yi. Mhm. ñu def ko ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha. ñu ne fi nekk ci kaamil yi nekk ci xasaayid yi ba tey ji ñu wari kon war nañoo gërëm ñi ñu seqaloon liggéey. Mhm. boo limee da ngay juum waaye waa diwaan bi ak les service de l'état yi nga xam ne yëpp ñëw nañu jàppale ñu. ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon daayira ak xale yi ko ëmb. sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen ñaanal ni leen seenub liggéey yàlla nako ko sëriñ Touba nangu te yàlla bu mu mujj a doon suñub liggéey fii suñuy ànd kon daal monsieur les ministres ñoo ngi leen di sant barab bangoogu barabub sëriñ Touba la barabub sëriñ Touba nag foo ko toll sëriñ bi toll la te nag yéen ñii barab bi miin na leen kon bon suñu xel dal na ñoo ngi ñaanal le président de la république mucc ak tal ak man ak kattan ak wërsëgu yaatu mu yore réew mi ak euh, ki nga xam ni mooy njiitul jëwriñ li nga xam ne moom it barab bi miin na ko daan na fi ñëw di julli kenn du ko gis nekk ca ginnaaw bu paree dem kon bu ñëwee tey jii doon premier ministre bu senegal ànd ak mbokkam moomu ñu jiite réew mi bu ñëwee fii di sàkkuy ñaan war na xam ne dinañ ko ci ñaanal yal na leen yàlla defal ndam ñoo ngi gërëm ñëpp di saram sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu